ci politique bokk ci convergence des cadres républicains nekk itam conseillère municipale euh, ca Mbour euh, Anne Françoise Diouf ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci émission Demb ak Tay bi maa ngi lay fay Fat Thiam maa ngi lay fay vraiment di la remercier ci invitation bi di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi baaxoo di déglu émission bi di nuyu waa mbuur fi nga xam ne fa laa jógee yàlla def ñu fal ma fa ma nekk fa conseillère municipale di nuyu aussi Sénégal yëpp wax dëgg neex yàlla di nuyu ñëpp Euh, di ñaan émission bi yal nañu ko commencé ci jàmm ak salaam te mu am njëriñ pour ñëpp merci. alors jërëjëf euh, Anne-Françoise Diouf ni ma ko waxee nag jigéen ci wàllu politique tey moom la ñuy waxtaanee des ci logique émission dimanche bi weesu ndax dañu toll ci jamono boo xam ne jigéen dafa am solo ci lépp rawatina ak ci wàllu politique ñu gis aussi jéego yi ñu ciy def. ñu fi nekkoon démb am na lu ñu defoon amoon engagement boo xam ne kenn werantewu ko yéen itam tey ndaw yi ngeen engagé wu. mais am lu ngeen gàddu euh, di ko prôné muy relève maanaam ne mag ñi jaraw ngeen lakk def ngeen lu kenn euh, mënta euh, werante ci lu baax ci wàllu politique waaye nag dafa jot ñu aawu leen noppal leen bala ñuy ñëw ci relève boobu nga xam ne yéen a ngi koy surtout yow ñu koy dégg ci yow lu baree bari noo apprécier tey mag ñi fi jiitu li nga xam ne moom def nañ ko ci wàllu politique. Euh, maa ngi lay remercier euh, Fatou Thiam en fait euh, man damay commencer peut-être def tuuti genèse par rapport ak li fi jot a am ci femmes yi nga xam ne elles étaient en politique. ndax man tamit su may wax rek tout le temps dama koy commencer Mbour muy fa ma dëkk ndax fa ma dëkk gisoon nañ fa benn femme bu brave bu tudd Caroline Faye mu nekk suñu repère nekk koo xam ne nii ñun dañuy roy ci moom mu def liggéey bu mucc ayib ci mbirum jigéen xeex ak ak yelleefu jigéen ba yàlla def. Euh, li gën ci moom. ñu koy tuddee nañ ko sax stade. waaw tuddee nañ ko stade municipal euh, Caroline fay yàlla def euh, mu jóge fi ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana mun ñooñu autant jigéen pour mu amoon yenn place yi ci biir politique dafa metti woon parce que par rapport ak stéréotype yi nga xam ne moom moo nekk en charge ci jigéen parce que dañuy wax tout temps que jigéen dafa war a toog ci kër gi dafa war a yor xale yi jigéen dafa war a togg dafa war a yekk yàlla def nag ñu dem ba jamono dox Euh, mu am benn prise de conscience bu am am benn maturité bu am ci femmes yi ñu ne ñoom jigéen ñi yeewu ne pourquoi pas ñoom du ñu dem engagé wu en politique ñi engagé wu socialement ñii di def développement so su loolu weesoo aussi man bu ma joxee Caroline fay comme exemple dinaa joxee tata Maimouna Kane Ndongo bi fi nekkoon nga xam kon na fi ministre de la femme temps Abdou Diouf kooku nekk koo xam ne nii aussi def na fi jéego yu rëy xeex ak ak yelleefu jigéen. man dama naan euh, ñun suñu société sénégalaise yàgg nañu. wax dëgg neex yàlla re reconnaître valeur jigéen mais xëy na fi jigéen war a tegu euh, pour le moment présentement dañ ko fa tegul mais autant loolu comme ni ma ko waxee à l'entame sànq bi may commencé mooy dafa am ay stéréotypes yoo xam ne dafa tax jigéen dafa bëri lu ko tënk. lan mooy bloqué jigéen ñi ci wàllu politique xam nga blocage yu jigéen ci politique dafa nekk loo xam ne nii euh, lu visible la lu ñëpp di xool parce que xam nga boo dès le bas âge soo juddoo euh, màgg ñu yóbbu la école euh, li ñuy njëkk xalaat mooy naka lay day lañuy def pour mu am jëkkër donc bu ñu xoolee ne vie de famille bi moo nekk doon primé autant ci kaw même éducation parce que autant dañu doon gis ne que fii yi ñu ci bëri euh, dañ elles étaient non scolarisées kenn daawu leen scolarisé daawuñu jàng dañ leen daan bàyyi ci kër yi ñuy togg di yekk ba yàlla def ñu may leen jëkkër parce que euh, peut-être que dañ doon gis ne que bu ñu demee école dinañ yeewu benn yeewu boo xam ne peut-être du leen arrangé wala que c'était mal vu que jigéen dem école dem jàngi donc loolu dafa tax dafa tënkoon ñu bari ba mënuñu woon engagé wu. ñii ci politique même pour sax nga wax sax yëkkati sa baat dañu la ko doon. tere ñu la boo politiquee doo tal sa kër ak. doo toppatoo sa borom kër njaboot gi waaw wax rek nga xam ne moom moo tënk jigéen boo politiquee doo tal sa sa kër doo sa njaboot doo sa jëkkër. donc loolu nekk loo xam ne dafa tënkoon jigéen ñi ba ci nekk da nga doon toog sa kër xool noo yaree sa njaboot xool nooy toppatoowee sa jëkkër mais nag comme léegi jamono dafa dox te dañu am ay repères comme ni ma ko waxee am ay exemple ñoo xam ne quand même dañu réussir ci politique quand je dis réussir ci politique du côté xaalis du côté dara mais côté engagement la. Ah, xeex ah, ba jigéen ñi am ay mbir yoo xam ne tey waaw. xeex ba jigéen ñi. lu mel ni parité ak kii la tey ay jigéen seen seen seen existence reconnaître seen place ci société bi ndax soo seetluwee ci avènement euh, durant la magistrature de ab Ablaye Wade ci 2018 si lañ fi voté fa euh, loi euh, pour la parité mu nekk loo xam ne dafa arrangé jigéen yi bu baax parce que dafa taxoon ñëpp ci instance de décision yi place buy góor jël jigéen jël ba ca des te loolu foog naa ne que. malgré yi ci jot a am maanaam am na ay lënt-lënt am na ay rëq-rëq yu ci am. mais je pense que déjà loolu rek jéego la woon. pour ñu reconnaître def égalité des chance may jigéen place bi mu bu war a am ci société bi. pour yow lan mooy njariñu jigéen di politique lan mooy njariñ la ñu bari dañuy wax ne préoccupation wu majorité population bi jigéen ñi ñoo gën a apt pour porter ko. maanaam ñoom ndax coono yu bari jigéen ñee koy gën a yëg. kon ñoom bu ñu demee teew ca bërëb yi nga xam ne fa la ñuy dogalee ñoom ñooy gën a xëy na woon a wax la am solo bu weesoo lool lan mooy njariñal jigéen di politique ci ci sa xam nga faatu euh, comme on di une femme et maire te euh, la mère dafa tout dire dafa dafa dafa ëmb lu bari déjà boo xasee nekk yaay am doom yow da ngay yar sa njaboot. politique du dara comme ni ñu koy waxee c'est la gestion de la cité gestion de la cité mooy yow nga nekk ci au service des population te nekk au service des population góor mën na ko jigéen mën na ko. moo tax tout le temps damay wax ne que euh, waruñu jël politique rek féetale ko góor. jigéen aussi war na mën a def politique ndax politique du dara lu dul li ngay def même sa biir kër ndax sa kër ko soo bëggee mu jaar yoon bëgg mu am ordre danga fay def politique ndax loolu politique la léegi nag soo génnee dans le cadre familial. nga génn ci société bi société bi dafa am nu mu tëddee ñun ñu am ay valeur am ci yoo xam ne ci lañ ñu tënk ci yooyu ñu ñu tënk je pense que jigéen moo gën a apte jigéen moo gën a war a mën a taxaw pour doxal ko wala pour xeex ko waxuma ne que góor mënu ko mais soo xoolee jigéen ak li ko yàlla jagleel yépp ak li ñuy waxal yépp waaw ndaxte jigéen dafa am kéemaan bu yàlla def ci moom Euh, jigéen dina wax ak nit mu déglu ko jigéen dina lijjanti dara mu sotti kon loolu dafay wane ne que euh, politique bi euh, jigéen war na ci mën a bay waaram bu baax et encore une fois mu andiwaat ko am nañ fi ñoo xam ne ni ay ay ay référence lañu ci wàllu politique nekk jigéen taxaw fi xeexal droit de la femme xeexal seen ay population au la des femmes xeexal seen ay population pour ñu mën a am benn légitimité wala ñu mën a am loo xam ne nii dina leen soqali jëmmale leen kanam parce que jigéen soo ko waxee jigéen day rassembler jigéen dina fexe am jumtukaay bu ko mën a tax mu am peut-être autonomisation financière am loolu yëpp jigéen moo koy lijjanti waxuma nag ne góor yi dañu des ginnaaw waaye li jigéen mën a lijjanti ci politique comme ni nga ko waxee di ma ko laaj sànq bari na bu baax a baax a baax waa bari na te gis nañ ay kàngam yu bari yoo xam ne par rapport ak politique bi ñu nekk ay femmes teg nañ fi ay jéego yoo xam ne euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf war nañ ko mën a pérenniser. war nañ ko mën a pérenniser parce que suñu demee ba ñu jël première femme euh, première ministre ñu defoon ko jigéen ci temps wu maître Abdoulaye Wade. Mame Madior Boye waaw Mame looloo lay wan ne la que am na lu lu tax président. Abdoulaye Wade defoon loolu autant président Macky Sall aussi bi mu ñëwee euh, dox na ci ay jéego ndax première femme ministre de la justice gis nañ ko fi muy madame Aminata Touré ñu teg ko fi moom itam mu liggéey lu mucc ayib ci justice bi ji amoon nañ am nañ fi récemment première femme pilote. pour wax la ne la que femmes yi ñu ngi dox jéego dans toutes les activités socio-économiques du pays pour béy ci seen waar ak occuper ci ay places yoo xam ne nii leer na leen ne mën nañ ko mën nañ ko liggéey kon man mën naa wax ne présentement relève bi ñuy wax war nañ ko mën assurer relève boobu ñuy wax war nañ ko mën assurer ndax euh, du dara nag. Euh, du puusal ma toog du da ngeen fee nekkoon seen temps dafa jeex da ngeen di dem déedéet dafa di euh, boo nekkee ndaw engagé wu en politique engagé wu pour euh, dans le sociale engagé wu aussi pour développement wu dëkk ba dafa rafet ngay côtoyer ay mag. mag yi ngay côtoyer nag dañuy nekk mag yoo xam ne ay référence la ñuy nekk ci yow mais dina tollu jamono boo xam ne mag ñooñu comme ni ñu koy waxee ñeneen a fi nekkoon ñoom ñu ñëw. kon yàlla day def ñoom itam bu ñu béyee seen waar ba mu rafet. dañuy former ñoo xam ne nii dañuy xëy suba daal di dem bàyyi fi ñeneen te loolu pour mu am aussi comme ni ma koy waxee euh, da ngay militer ci parti politique parce que mënoo tëb rek ne damay politique te ci parti politique. boo nekkee ci parti politique da ngay xam idéologie parti ba xam doctrine nu parti ba xam na parti ba di doxee yow nga jéem a tënku ci loolu pour yow au moins nga am benn légitimité par rapport ak sa engagement nga mën a. mën a prétendre au moins wax ne kat man lii laa bëgg a def te dinaa jàpp ci lii tout en reconnaissant lépp loo xam ne moo ëmb parti boobu noonu donc ñun je pense que ci ci tank yooyu la ñu nekk parce que man bi may door a dugg bi may dugg ci politique APR laa mës a ne fa laa nekk ba tey jii fa laa nekk c'était en ba tey maa ngi APR ba ma cay dugg euh, ka ma fa dugaloon sax nekkatu fa yàlla def na ko waaye booba ba tey ñu ngi ciy cheminer ba yàlla def euh, ma bokk ci structure cadre yi nekk fa jigéen waaw wax dëgg neex yàlla euh, di ci militer di liggéey di jàppale son excellence le président Macky Sall ci lépp loo xam ne feuille de route la ak lépp loo xam ne vision wam la ak lépp loo xam ne mi ngi ko teg pour ñun ñu jàppale ko. lan moo taxoon nga dugg ci politique lan moo nekkoon déclic bi lu la poussé vraiment nga engagé wu. bon man li ma dugal ci politique euh, chaque fois su ma ko journaliste laajte su ma ko waxee après dafay reetaan ah. mais dinaa la wax li ma dugal ci politique mooy lan mooy euh, dañ daan def euh, fu élection présidentielle wala législative jotee ñu dem voté ci ñëw toog élire ay nit ñuy liggéey ci benn waxtaan bu ma sekkoon ak benn kilifa mu ne ma mais yow aan lu tax mënoo politique ma ne ko non man bokkuma ci parce que comme affaire de diine diine bi ma nekk mu ne ma ma ne ko ñun lu bari daf ñu tënk ba nga xam ne euh, ku lay wax ne la que ta main que ce que donne ta main que ta main gauche ignore ce que donne ta main mu ne ma ne ko loolu dafa tënk lu bari moo tax damay moytu te politique bi ma gis euh, dama koy wax le matu vu laa gis nit ñi dañu ñemee trop le paraître mais nag wax nga dëgg mu ne maa ma ne ko ndax man aan mu ne maa ma ne ko sonn naa chaque cinq ans ma dem votel kenn mu mu yor suñu prédestiné dëkk te moom li mu mën a wax man ma mën koo wax ak keneen ma ne ko dorénavant mu ne maa ma ne ko muy def du sedd xol. voilà ma ne ko nag dorénavant mu ne maa ma ne ko su ngeen amatee réunion convi euh, politique nag ma convier donc man noonu laa commencé APR ba bokk ba ba ba dugg. kilifa gu mag nag moo ma dugaloon APR yàlla def na euh, mu wàññeeku <laughs> waaw waaw yàlla def mu wàññeeku mm. wax dëgg neex yàlla muy kilifa gu mag ku fi nekkoon ñu koy ñaanal yàlla na suuf sedd ci kaw mm. muy maître Alioune Badara Cissé waaw muy maître Alioune Badara Cissé yàggul barki démb la doon am un an ma ko koy ma ko koy euh, sante wax dëgg neex yàlla ndax nekkoon na nit ku baax mm. nit ku oyof nit koo xam ne xale bu gën a tuuti mënoon na ko taardel mm-hmm. mënoon na ko tardé. loolu nag su amee euh, nga am ci foo jaar wax dëgg neex yàlla dafay rafet. Euh, kooku la mu tegoon nga tënku ci ndax moom ci lim ñu jàngaloon bi ñuy dóor a ñëw wax dëgg nit ku dëggu la woon. te nee woon na bu la dara jaral nga jaay sa ngor bu la dara jaral tamit nga gis dëgg bul ko wax te foog naa ne ci loolu la ñu tënku ba tey looloo tax nag depuis boobu it ñu ngi ci nekk APR. muy parti euh, boo xam ne ñëpp a ci nekk. ñu dem ba ubbeeku. def une grande ouverture am la grande majorité du pré euh, présidentielle du moins Benno Bokk Yaakaar depuis boobu it ñu ne ci di liggéey di béy suñu waar. yàlla def na ma am ci ndomb tànk ndax noonu laa ko mën a tuddee ndax euh, récemment ci élection locale yi j'ai été investie et j'étais élue moo tax ma nekk conseillère municipale à la mairie de Mbour. donc je pense que liñ ci war a def ñu ngi ci te ci tànk yooyu lañu nekk te duñu xàddi. du ñu tàyyi di ko def parce que lépp lu ñuy def rek c'est pour le bonheur des populations looloo tax ñu koy def waaw. yaa ngi wax sàng mbirum idéologie euh, pour xam parti bi nu muy doxee nga tënku si mais dañuy dégg ñu ne jigéen ñi moom parti politique yi lu si bari tàcc lañ leen di doyee sol yëre yu nduróole maanaam koloore jotaay yi euh, feesal xumbal mobiliser après buñ ci paree pare nañ ci boobu image ñuy euh, jox jigéen ñi ci wàllu politique yow ndax am na foo ko nangoo. waaw man moom euh, côté boobu aussi gis naa ko wax dëgg neex yàlla am na ci am na ci euh, ay jigéen yoo xam ne bu ñu nekkee ci parti politique yi en général tout ce qui mobilisation la ñuy yor waaye nag politique dafa ànd ak mobilisation aussi ñu war ko mën a reconnaître nit ñi nga xam ne euh, ci la ñuy liggéey mais sans pour autant que tàccu lañ fay nekkee ak way ak yenn ndax je pense que ku war a tàccu wala nga war a woy mën nga koo def sa kër mais soo demee ba bokk ci parti quand Euh, mu leer la ne dafa am lu la fa yóbbu tàccoog woy bi ci la bokk waaye dafa am leneen loo fa wuti leneen li nga fa wuti mooy la parti ba teg nga fexe ba loolu parti ba teg nga jéem ko ñoŋal jéem a def la parti ba wax te liggéeyal dëkk bi ndax politique du dara lu dul liggéeyal dëkk bi donc man je pense que loolu euh, folklore bi comme ni ñu koy waxee te man ma tàmm di ko wax chaque 8 mars dama naan folklore bi dafa bari ndax bu dañuy seetlu bu 8 mars jotee dañuy gis ne que femmes yi comme ni nga wax rek mën nañoo bañ a bokk sax ci parti politique mais dañuy niroole fii di di kii nu mu tuddati di tëgg. nee nañ sax am na jigéen ñoo xam dañu leen di loué uniquement pour loolu indi leen jox leen dara bu ñu paree dem. <laughs> loolu mën na nekk am na ci mais je sais que par rapport ak 8 mars bi ma la évoqué nii. Euh, léegi am na éveil des consciences parce que gis naa ko ci femmes yu bari euh, li ñu daan def di xumbaare toog def benn yendu et tout yàq fa xaalis lekk et tout yu ci bari mi ngi wàññeeku. man dama yàgg di wax chaque 8 mars li xew mooy dañu war a def évaluation 8 mars bi passé suñ defee évaluation jéem a xool fan la ñu nekkoon. te lii fan lañ ko war a mën a yóbbu donc moo tax tout le temps damay wax ne ñun bu ñu nangu di jouer les second bon rôle waaw bu ñu nangu di jouer tout le temps les seconds bons rôles parce que soo nangoo jouer tout le temps les seconds bons rôles tout le temps dañuy gis ne que yow euh, côté peut-être euh, ludique bi wala côté folklorique bi wala. bu sérieux moom duñ la woo bu sérieux duñu la woo alors que. Euh, ci femmes yi femmes yi nga xam ne ñi ngi politique wala ñu ñu occuper yenn poste de responsabilité yi quand même c'est des femmes engagées des des femmes qui sont expertes et et, et des femmes compétentes donc loolu mënuñu ko dindi. loolu xam nga dañ koy wax ba ci parité bi sànq yaa ngi junj lënt lënt yi mais bokk na ci li ñuy jàmbat ñu ni parité bi nga xam dafa obligé fu ñu teg góor teg fa jigéen yenn saa ñoom jigéen ñoo xam ni place ba mérité wuñ ko waaye pour remplir rek dañ fay teg koo xam ni xëy na dañ koy am ni rek sous la main ko loolu tam est-ce que jigéen ñi waruñu ci xoolaat seen bopp euh, ndax bu ñuy wax relève di bugg euh, am benn place boo xam ne dañ koy occuper ci wàllu politique aussi faaw ñu xoolaat toogin nii xam nga euh, mbir bu lépp lu am maanaam loi parité boobu nga tudd di wax nekk jigéen bu ñu tegee jigéen dañu war a teg góor bu ñu tegee jigéen dañu war a teg góor mais aussi poste ba ko koy occupé war naa nekk nit ku compétente ba war koo mën a yellool pour def ko moo tax tout le temps man damay prôner le renforcement le renforcement de capacité ci niveau ñëpp que ce soit góor que ce soit femme euh, homme du moins autant pour moi parce que euh, dafa nekk loo xam ne wala fañ lay teg dafa nekk loo xam ne boo ko matul wala nga fees ko tout le temps dafay feeñ lacune yi dafay feeñ te loolu dafay wane tout le temps aussi que yenn saay góor ba ñuy teg ci kaw yow nga topp ca boo motalewul yow li tax ñu teg la dañu lay xeet mm-hmm. parce dañu naan kii dañ ko fi teg peut-être dañ ko pisté comme niñ koy waxee. boobu jigéen déjà lu ko gàllankoor dafa bari lu ko gàllankoor dafa bari moo tax tout le temps damay prôné ñu def renforcement pour les pour jigéen ñi. maanaam suñu gisee ne que yow tu es pressenti pour ñu teg la ci poste bi nañu la renforcer ba nga xam ne boo fa demee di nga fa liggéey liggéey bu mucc ayib di nga fa bàyyi ay ay ay ay nu mu ay mandarga maanaam di nga fa bàyyi yoo xam ne nii. trace yoo xam ne nii. ku fa ñëw dina xam ne yow liggéeykat nga donc côté boobu aussi bëggoon naa ñu gën a renforcer jigéen ñi parce que renforcement dafa baax parce que relève bi ñuy wax pour nga relever nit dafay fekk nga mat ko waaw dafay fekk nga mat ko te loo matul comme li ñuy wax olof daf koy wax doo doonul taalibeem doo doon sëriñam mm. moo tax tout le temps euh, il faut ñun jigéen aussi ñu gën a defar defarwaat euh, man dafa am ku ma faral di wax Anne Françoise da bëgg jàng mm. kañ ngay bàyyi jàng ma ne ko jàng du dara lu dul ut xam-xam bu la leeree ne da nga bëgg am dara te foofa pour nga yegg fa il faut nga wut xam-xam il faut nga jàng pour nga wut xam-xam man ba tey j'ose la diir damay jàng maa ngi jàng ba tey ndax nag nit da nga war fu ñu la tegee fenn nga matal ko am loo fa loo fa loo fa fekk mm-hmm. am loo fa bàyyi ba keneen bu ñëwee mu mën la naw mm-hmm. moo tax encore une fois maa ngi woo suñu mbokk jigéen ñi ñu dem gën a renforcer wu gën a defarwaat parce que le Sénégal de demain c'est pour le jeunes mais c'est pour les femmes mm-hmm. waaw loolu j'y crois dama ko gëm mais est-ce que gëm nga ne relève bi pare na ndax tey loo mën a wax ci jigéen ñi nañ leen teg fii nañ leen jàppale mais dañuy gis jigéen ñi xeex moroomu jigéenam ci wàll politique surtout xeexante bi des fois sax góor ñi dañ leen di ree ñam nañu naan xëy na góor ñi ñoo leen di ruube pour ngeen nekk fee di crêper les ñoo après ñoom ñu ñëw occuper les responsabilités seddoo li ci ëpp solo yooyu est-ce que tamit relève bi boobu côté jàpp nga ne pare ngeen pour assumer ko jigéen ñi politique. xam nga soo déggee relève mooy euh, ku mën a euh, relever nit mooy ku mën a wuutu nit. wutu nit nag euh, moo bi dafa xaw a diis parce que soo ko waxee dañuy xalaat ne que da nga bëgg nit ki mu puus rek yow nga toog alors que demeewul noonu en fait renouvellement classe politique il faut muy am tout le temps parce que dafa war a am. parce que da jàpp ne jot na ci jigéen ñi. dafa jot depuis bu yàgg fépp nag partout góor ak jigéen a ci yem parce que soo seetluwee Senghor moo fi nekkoon Senghor dem Abdou Diouf ñëw Abdou Diouf dem Ablaye Wade ñëw Ablaye Wade ñëw na Macky Sall toog donc kon am na am na benn mutation bu am boo xam ne nii da lay leer ne. personne n'est éternel boo fi toogee aussi yàlla dafay def di nga matal liñ la liñ la liñ la tabee woon waaye dangay dem keneen toog soo déggee ñuy wax relève mooy euh, daf ci am comme ni ñu koy waxee euh, euh, ay acteurs politiques yoo xam ne depuis bi ñu fi nekkee ba tey yàgg na liggéey nañu bay nañu seen waar te forme nañu waaw et li tax may may may may insister ci moom bi mooy formé nañu ay nit yoo xam ne tey jii war nañ leen mën a wuutu parce que comme ni ma koy waxee rek soo amee une population boo xam ne 70 pour cent yëpp jeune la dafa am noo xam ne da nga ko war a defee man nag duma ma jeune mais loolu su ma koy wax mooy par rapport ak euh, ñu xool maturité nit yi ñi nga xam ñi ngi ñi ngi engagé wu en politique ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk parce que ñu bëgg ko ñu bañ ko euh, dañu toll jamono dafa toll foo xam ne il faut une nouvelle offre politique il faut une nouvelle offre politique loolu yàlla daf ko def te loolu moo am présentement fi ñu toll ndax soo xoolee euh, ci li ñu jógee ci local yi ak législative yi gis nañ fi benn percée boo xam ne nii ay ay ay cadres ñoo percé ay jeunes cadres ay nit yoo xam ne c'est des gens qui sont sortis du néant kenn xamu leen ñu jékkee-jékki ñëw nekk au devant de la scène ba occuper ay postes ñi nekk ay maire ñi nekk ay député ñi nekk leneen xam nga lu waral loolu li Euh, euh, population bi daf ci am ay ay ay genre acteur politique yoo xam ne nii dañ fi nekk yàgg fi ñu gis ne xëy na xëy na amal lu ñu leen jëriñ wala xëy na euh, seen temps dafa passé ñu bëgg ñeneen ñu bees pour ñu ñëw wane lu ñu man wane seen expertise du nag dañuy diingat wala dañuy wax ne diw mënul wala diw mënul mais jamono dafa dox te dafa toll foo xam ne nii dafa jot ñu jël ñi nga xam ne am na nañu yëg-yëg bi te mën nañu liggéey bi ñu jël leen ñu dem wane li ñu mën parce que ñu ngi koy wane fi ñu dëkk ci seen dëkkuwaay yi ndax man euh, su ma jëlee man sama cas damay wax ne que man dama yàgg def social parce que man dama évoluer ci euh, euh, activité socio éducative yi def naa sport nekkoon naa basketteuse waaw à Mbour et tout là am na groupement de femmes yu may liggéeyal kon mën naa ne que côté développement ak côté femme xam naa ci tuuti te xam naa ne que am na ci sama ay morom ak ñoo xam ne xëy na ñoo ma xaw a mag tuuti ci loolu la ñuy liggéey te ñëpp gis nañ liggéey bu xarañ bi ñuy def. Mm. ba yàlla dafa def euh, genre yooyu nag su fekkee dafa am lii mën a am rek mooy euh, ñu jàppale leen wan nangul leen seen mën liggéey nangul leen aussi que li ñuy def am na am na benn impact bu mu am ci société bi loolu dafa am solo mag ñi nag yàlla dafa def. dañu nekk task force noonu laa ko tuddee parce que tout le temps dañuy wax te loolu je pense c'est Amadou Hampâté Ba moo ko wax quand un vieillard meurt c'est une bibliothèque qui qui brûle donc dafa di mag dafa mat a bàyyi ci biir réew te foog naa ne képp ku ci engagé politiquement nekk xale war nga mën a am mag bu nekk sa wet di la tette ba yow fi nga bëgg a yegg nga yegg fa mais nag dafa jot ci niñ koy waxee ñu am benn offre politique boo xam ne yeneen nit la du sang neuf comme je l'ai dit du sang waaw nga xam ne ñooñu au moins dinañu mën aussi wone seen expertise wone aussi li ñu mën ba pare yokk yokk yokk ñeex ci cere ji comme noonu lañ koy waxee. <laughs> alors Anne dañuy dem droit au but tey ñen nga gis ne ay mag lañu ñu fi nekk te vraiment ñu war a dem noppalu ji pour yéen relève bi ngeen. waaw man nag euh, Fatou Thiam posé nga ma question boo xam ne nii xam naa ne moom euh, dinaa la répondre nag ndax man nii ku ma xam-xam ne boo ma posé question dinaa la répondre mais nag man dama nekk nit ki nga xam ne euh, sama débat du ma ko personnalisé li ma la mën a jox rek te mën la ko wax mooy am na fi ñu fi nekk depuis booba ba léegi bay seen waar ba ñëpp xam ne bay nañ seen waar ñu war a noppalu ñooñu ñan lañ. waaw bàyyil bàyyil bàyyil ma développé. bàyyil ma développé yow journaliste nga. ba pare journaliste d'investigation nga yow je pense que xëy na tey boo jëlee sa dictaphone wala nga dugg ci ruq-ruqaat yi xool parti politique yi ni mu formé woo di nga war a mën a xam ne bii kii mag bii góor gii wala wala jigéen bii ah jot na nag wax dëgg neex yàlla même bu demul retraite ñu am nuñ ko def muy ñaa mu ñuy ñaanal di ñu jox ay ay ay conseil pour ñeneen ñi mën a dem loolu moom war nga ko mën a xam jarul ñuy tudd <laughs> waaw loolu dafa am ci parti politique yi te xam nga fi mu nekk nii parti politique yi comme je dis euh, au Sénégal yi ci gën a nekk en vue soo xoolee war nga mën a xam ñi ci nekk parce que loolu dafa am solo dafa am solo renouvellement classe politique dafa am solo ci sur beaucoup de choses parce que tamit euh, politique euh, soo tegee ay nit ñu lay liggéeyal Euh, yow kilifa gi soo demee ba nga sentir ne que xëy na yow ña nekk ca sa base ba. jëriñatuñ la dara wala politique bi nga bëgg ñu politiqueel la ko defatuñ ko war nga mën a def taxaw seetlu waaw taxaw seetlu. mbaa du allié yi ngay waxal. allié bennoo yeeg législative yi ñu génnee nañu seen njariñ daal moom kenn yëgatu ko noonu ñoom maa du ñoom ngay waxal ni déedéet du ma du ma sànni xeer allié bennoo yi parce que quand on parle de la coalition de la grande majorité je pense que allié yi am nañ ci place bu importante donc man du ma sànni xeer allier yi mais li may wax mooy euh, ci coalition yi am na ci parti yoo xam ne la ñu doon peser autant bi ñuy dugg ci coalition yi peser tuñu ko loolu concevoir pas la face loolu dafa am. am na aussi ci parti bi ma bokk man muy APR am na ci ñoo xam ne la ñu doon peser aussi autant peser tuñu ko te en plus euh, dafa am lu am. Euh, am na ay poste yoo xam boo ko occupé wala nga am ay ndombo tànk yoo xam boo ko amee wala nga am cër buñ la jox ci dëkk nga def ko ay ati ati at bu yàggee tu perds en année mais tu n'acquiers plus d'expérience challenge bi nga doon am pour dem ci population bi di leen xool pour élection yeeg yooyu du la ko jaralati am na ci ñoo xam du leen ko jaral parce que dañuy xalaat ne que tout est déjà acquis te loolu moo tax. def nañ li ñu waroon def yëpp daal amatuñ li ñuy prouver déconvenu yi am ci ci local yi ak ci législative yi mu am parce que am na ci ñoo xam ne ils étaient proches de la population doon def lépp pour population mais bi ñu demee ba am population bi dañoo taxaw toog foog ne population bi am nañu nit ñi ba pare maintenant de ce fait au fil du temps dafay am benn désamour bu am entre la population ak yow mi nekk à la base parce que mouilletoo la maillot tu n'es pas proche de la population suñ la woowee la woowee duñ la jot tu organises ton injoignabilité euh, nekkatoo à service bu yàggee ñoom dañuy bàyyi te keneen ku ñuy ku ñu ku ñu gis ku bees ñu ànd ak yow parce que Sénégal pour nekk fi messi dafa gaaw fii pour nekk fi Messi dafa gaaw parce que euh, ki fi nekk bu matalul rek nga gis keneen ku xaw a rek da ngay dem ca moom. donc loolu moo am dem bato costé. mu ngi noonu loolu moo fi am te local yi ñun euh, côté APR loolu xaw nañ ko dund xaw nañu dund aussi. Euh, li opposition bi politique muy la loi sur l'homosexualité te nga xam ne président Macky Sall tranché woon na ci yàgg na xaw nañu dund problème boobu bokk na ci on a vécu aussi le le problème des de de liste parallèles ak vote sanction yi au sein même de la l'APR parce que am na ci ñoo xam ne président tànneef bi mu defoon par rapport ak nit yi neexu leen ñu préféré dem uti liste parallèle demal seen bokk loolu bokk na ci li ñu gën a affaiblir suñu ñëwee ci législative yi peut-être euh, investiture yi am na ay nit yoo xam ne investir nañ leen neexuñu nit yi gars yi toog nit ñi toog bañ a voté ji parce que taux d'abstention bi franchement bari na am na ci yoo xam ne aussi par rapport ak ak population bi la parce que soo soo nekkee ci dëkk ñu lay jàppale élec du élection ñëw nga gagné élection passée gisatuñu la boo soxlaatee day metti pour nga dem ci population bi te loolu yëpp dafa nekk loo xam ne nii dafa dafa bokk ci li ñu lésé ci élection législative yi donc euh, moo tax euh, li ma waxoon lay waxaat rek euh, offre politique bi moom lu mën a mënul a ñàkk il faut une nouvelle offre politique pour quand même jéem a defar benn rupture de confiance bu ñu gis entre population bi ak certains responsables à la base parce que loolu am na li nga wax ni dëgg la moom loolu kenn mënu si teggi dara euh, jeunes yi nag gis nañu ni ñu ngi engagé wu. mais législature bi di ñëw par exemple quatorzième bi am na ñu ci am tiitaange ndax na jigéen ñi xëy na fugg la euh, euh, jeunes yi autant pour fugg la ñuy demee est-ce que am nañu maturité bi war est-ce que xam nañu responsabilité yi nga xam ne moo gàllu ci seen ndodd ñu war a lu toll ni assemblée nationale daanaka nga xam ne lu bari ci réew mi foofu lañ koy décider foofu lañ koy valider est-ce que jeunes yi pare nañu maturité bi war. yaakaar nga ne am nañu ko yéen ngi bëgg a buux mag ñi waaye maa mën ngeen a gàddu le mag ñi yoroon non boo nee yéen ngi bëgg a buux mag yi day mel ni euh, comme dañu bëgg mag yi dem. ñeneen toog yéen da bëgg a buux mag nag toog nag. ah yaa ngi koy yaa ngi koy mais. mais sooy wax inquiétude bi quand foofu noonu. waaw sooy euh, yi aussi man duma ci gis sam bopp parce que man du ma jeune. ah doo man du jeune wax dëgg neex yàlla. <laughs> si mag ñi nga bokk. waaw man du ma jeune du ma wax dëgg neex yàlla dépassé naa jeunesse. Euh, gis naa aussi que ñi nga xam ne jot nañ leen investir te ñu war a dem assemblée am na ci ay jeunes jeunes yooyu aussi euh, je dis pas que le choix a été fortuit parce que nit su demee ba choisir la tànn la investir la ci liste c'est parce que am na fu mu la teg te xëy na yaakaar na ne fa mu la bëgg a yóbbu di nga ko matale. waaw liste bennoo bi nemmeeku nañu si quand même benn rajeunissement. waaw moo tax aussi dañuy faral di gis bu législature bu ñuy waaj a teg législature day am renforcement de capacité loolu aussi day ñëwaat ci li ma la waxoon ne la képp ku war a jot am foo dem am luñ la war a teg dañ la war a former. foog naa ne renforcement de capacité boobu pour wan leen assemblée nan lañ fay liggéeyee loolu dina am importance bu baax a baax a baax par rapport ak yeneen euh, ak opposition bi nag bon li fi xew ñëpp gis nañ ko euh, xëy na yàlla def euh, seen investiture jaarul yoon yàlla def na aussi liste ba validé wuñ ko ah ñu ëpp chance ñoo nar a dem assemblée muy suppléant ya ah ñuy ñaanal suppléant ya aussi bu ñu yeggee la taxoon ñu def leen suppléant mm. ah ñu matal ko rek ndax yow gis nga ne élection yi passé suppléant wu opposition yi kenn xamu leen mm. kenn gisu leen ah ña dem ñu bari ba tey xamuñu leen on a hâte comme ni ñu koy wax yàkkamti nañu ñu teg euh, président teg assemblée bi ñu voté ñu xool kan mooy nekk président et tout ñu dem xool composition bi parce que tamit loolu daf ci am solo mais nag euh, assemblée euh, du lu ndaw te lu caaxaan ba tax na euh, composantes yi dañu war a nekk ay nit yoo xam ne quand même euh, am nañ benn capacité peut-être euh, bu ñu mën a développer am nañu aussi benn maturité am nañ benn bagage aussi boo xam ne bu ñu yeggee danañ mën a sax comprendre la nekk ca ca feuille ya muy lu ñuy def lu ñuy voté loi et règlement xëy na loolu yëpp war nañ ko mën a xoolaat moo tax ma ne maturité moom lu am solo la ci assemblée. alors buñ jógee assemblée ñu ngi xaar gouvernement bu bees gouvernement boobu lan moo si war a nekk place su ndaw yi si sa xalaat mais surtout jigéen ñi. Euh, dinaa ñëwaat ci offre politique boobu ma wax ndax euh, gouvernement bi depuis boobu ba tey ñu ngi koy xaar euh, di xaar son excellence le président Macky Sall mu mettre ko en place te foog naa ne fii ci ay bés yu néew dina ko teg. ah mu nekk gouvernement boo xam ne ñun ñëpp am nañ ci yaakaar ndax euh, comme moom mooy fal niñ koy waxee au poste civil et militaire ñuy xaar ba xam composition bi naka lay demee parce que nag euh, instant bi ñu toll nii foog naa ne li am ba des mooy Euh, gouvernement bi ñu war a fal euh, ni ñu koy waxee gouvernement de combat la war a doon waxuma combat pour adversaire ou pas mais combat pour liggéeyal population bi waxuma ne bi fi nekkoon euh, daawul liggéeyal population bi parce que ci la ñu nekk ñu ngi koy liggéeyal mais suñu demee ba ne remaniement day am cela veut dire que am na ci yoo xam ne nii xëy na dañ ko war a changer am yoo xam ñoo xam ne war nañu des am ñoo xam ne ñu bees dañuy dugg li ñu ci mën a wax rek mooy Euh, ñu ngi xaar président ba xam lan lay teg parce que xam nañu ne aussi euh, xëy na du teg loo xam ne nii euh, du nekk lu lu baaxul ci population bi ndax ba mu fi nekkee ba tey nit ñi gis nañ li mu fi def waaw wax dëgg neex yàlla bu dee réalisation am na bilan président ma Macky sàll am na bilan liggéey na dëkk bi liggéey na Sénégal loo xam ne nii même yàlla bu defoon tey mu jóge fi aussi nit dina ko mën a waxal ne ko lii yaa ko fi def ndax gis nañ avancé yi fi am euh, gis nañu BRT bi ñuy préparé nii terre bi gis nañu au bénéfice des populations les plus euh, reculées euh, ba jam ñaajo problème mu transport yi ñu amoon gis nañ ko fi man soo demee man fa ma dëkk am nañu port de Ndayane bi ñuy tabax nga xam ne daf ñu jege bu baax a baax hôtel Rue Baobab bi mu ñu tegal récemment fii nii mu nekk ci bokk ci Malicounda nekk Pointe Sarène ñu gis capacité d'accueil ba fa am lépp nga xam ne que loolu yëpp dafay participer ci économie man dëkk ba ma dëkk. te boo weesoo loolu ñun gis nañu que ne euh, nee naa euh, nguuru Macky foog naa ñu mbuur aussi am nañ ci yu bari jéego yu bari ndax autoroute yi yëpp péage yi yëpp dafa jaar biir mbuur aéroport Blaise Diagne bi gis nañ ko Euh, mu générer ay emplois yu bari ca département bi kon ñun mën nañu wax ne que réalisation président Macky Sall au niveau de Mbour ñun gis nañ ko. même mais tax malgré loolu yëpp nag. même à travers le Sénégal gis nañu réalisation parce que demee dans le Sénégal de profondeurs man damay voyager lu bari ci ci dëkk yu yi ci ginnaaw gis nañu ne accès à l'eau et à l'électricité bi. dafa euh, dafa dafa am. waaw lu lu visible la parce ñun. Euh, bari nañ ci dëkk yu ñu dem yoo xam ne ne ils étaient éloignés du réseau électrique te yàlla def na euh, courant egsi na fa wala am nañu énergie solaire te accès à à l'eau bi aussi am na fa solo looloo tax sax bi bi bi opposant yi di xataraayu naan euh, les nu mu tudd résultat yi président am ci ci ci ci euh, Sénégal des profondeurs bi daf leen jaaxal mais nag ah ku gis nen ne na ngi dafa liggéey rek moo tax ñu votel ko. waaye ba tey au plan national élection moom mi ngi ciy am jafe-jafe lu tax malgré réalisation yi nga fi liste yëpp euh, politiquement euh, peut-être nit ñi joxatuñ ko bopp. xam nga de du ma ne joxatuñ ko bopp. ndax suñ ko joxee woon suñ ko woon bopp. xëy na am na loo xam ne nii du du am. Euh, li am ci élection locale yi ak législative yi dafa dafa laaj jàngat bu baax a baax a baax dafa laaj jàngat bu baax a baax. li ci nekk mooy euh, am na lu population yi xëy na doon gis te gisatuñu ko ndax nit bu la doon votel ba votelatu la da nga war a taxaw nga def taxaw seetlu euh, suñu jëlee déconvenu yi am ci grande ville yi majeure partie grande ville yi nga xam ne vote la euh, gëj nañ ko gañee depuis je dirais locales yi ba tey dafa jot ñu taxaw seetlu xool lan moo tax gagné ko dafa jot ndax nag mbir day tollu foo xam ne da ngay def évaluation te bu ñu bu ñu nax suñu bopp ci parti politique la ñu nekk nekk ci grande coalition am na ñuy liggéey am na ñoo xam ne xëy na lañ leen sant matale wuñu ko te loolu dafa am am na aussi désinformation bu am durant campagne locale yi ak législative yi ndax opposition ñëpp gis nañu lu ñu campagne loi sur l'homosexualité OGM lu nekk wax nañ ko fi te xam nga tamit kiy ñëw ci yow tout le temps di la wax di la wax di la wax bu yàggee da nga koy gëm mais bari na ci désinformation boo xam ne nii moo waral euh, xëy na. bi ngeen am ngeen bàyyi terrain boobu. défendre leen li ngeen waroon défendre loolu tam foog nga nangu du ma ne défendre ñu li ñu war a défendre parce que ku ci nekk fa nga dëkk ca bërëb ba nga nekk euh, yaa ngi fa doon bay sawaar dafa di xëy na cër biñ la war a jox ca parti ba bu ñu la ko joxul ñi nga àndal ñoom di benn instant dañuy dem ba dañuy découragé te loolu dafa am. loolu dafa am ba pare encore une fois waxoon naa la ko sànq ci ci njëlbeen liste parallèle yi daf ñu daf ñu jaaxaloon bu bari parce que liste parallèle yi ci local yi ñi nga xam dañu bokk APR dem liste parallèle bokk na ci li ñu perte loo législative yi nag gis nañu ni mu demee waaye taux d'abstention bi aussi bu ñu ko négliger parce que sooy def évaluer élection dafa bari ay paramètres yoo xam da nga ko war a jël en dafa bari paramètres yoo war a jël en jeu parce que bi ci boppam daf doon taw ñu bari gis nañ jour élection dafa doon taw jaral ñu bari jaral leen ñu génn. Mm. gis nañ aussi que ñi génn bariwuñ. mooy taux d'abstention bi gis nañ aussi que euh, xëy na euh, kii yi nu mu tuddati investiture yi am nañu ñu investir te nit ña ànduñu ca nit ñi préféré bañ a voté ji am ñu def vote sanction. assemblée nationale bi tam population yi ñu ci bari sentiruñ leen dañ naan seen bopp lañ fa nekkal duñu wax lu ñor askan wi lu président wax ñu ni gongo lu mu bëgg loolu la ñuy voté député yoo xam ne seen i askan neenu duñ leen gis euh, loolu itam xëy na bokk na ci li waral nit ñi daal législative moom du leen yëngal lu bare. waaw taux d'abstention wu législative yi moom mérité na jàngat bu baax waaye nag foog naa député bu ñu fal te asa askan fan la parce que euh, attention hein, entre mandat nominatif ak mandat électif am na diffé euh, différence parce que ki lay nommé da lay signal mu nommé la mais ki la élire peuple moo la élire kooku da nga am devoir envers moom nga xool ay jafe-jafeem xool ci li mu soxla. am na ñu koy def waaye am na ñoo xam ne moom keroog bañ leen takkalee écharpe ba lañ leen gëj a gis. waaw loolu du ñàkk comme ni ma koy waxee rek ci daje wala ci jotaay boo gis dina ci am ñoo xam ne ku ci nekk ak la la yëkkati ndax tey jii euh, élection bu jotee ku nekk nekk candidat ku ci nekk euh, dans ton fort intérieur xam nga li la yëkkati ñi nga xam ne population bee leen yëkkati ñu ngi ci nekk ci ñoom di leen liggéeyal nekk seen wet di leen jàppale di toppatoo jafe-jafe population bi ñi nga xam ne nag leneen a leen yëkkati ñooña noona ah yàlla day def bu bu ñu demee tamit am neneen nu ñu doxalee bu beneen yoonee bu ñu bëggaatee nit ñi duñu leen jot ndax instant bi comme ni ma la koy waxee rek éveil de consciences moo am te foog naa ne dépassé nañu fu ñuy te population bi ba ñu voté la ndax bu ñu xoolee li fi jot a am lépp de 2019 à léegi war nañu mën a xam ne population sénégalaise yeewu nañu bu baax a baax a baax. alors ñu ñëwaat véritablement ci suñu sujet tey muy euh, ndaw ñi ak euh, taxawaay bi ñu am ci wàllu politique euh, bëgg xëy na noppal mag ñi. taxaw taxawaay ba ñu taxawee woon noo jàngatee tey jigéen ñi participation bi ñuy def ci wàllu politique de manière globale taxawaayu jigéen tey ci politique noo ko noo ko jàngatee. Euh, taxawaayu jigéen ci ci politique euh, présentement dinaa ne am na solo waa ndax soo demee ci parti politique yi di nga fa gis ay jigéen yoo xam ne euh, c'est des femmes engagées ay femmes yoo xam ne nii am nañu expertise ci seen domaine de compétence te ñu ngi fay liggéey lu mucc ayib Euh, li tax ma wax ko mooy soo seetluwee euh, récemment par rapport ak euh, li jot a am ci élection yi laa koy waxaat boo xoolee investiture yi jigéen ñi bëri nañu ci bu baax a baax soo seetluwee aussi de plus en plus euh, les femmes à s'engager en politique c'est pas parce que euh, dañu engagé wu nii pour leur plaisir mais dañu gis ne que am nañu taxawaay bu am solo boo xam ne war nañ ko mën a am ci politique bi yàlla def ñu engagé wu ci parce tey mën naa tudd kenn koo xam ne nii xëy na man ci laay liggéey muy ministre du pétrole et des énergies muy madame Sophie Gladima mu nekk euh, jigéen bu am xam-xam euh, bu yàgg liggéey nekk fi ministre ñaar ba ñetti yoon yor fi direction et nekk ñoo xam ne nii tey dalay leer ne ñooñu euh, ay liggéeykat lañu ay liggéeykat lañu te bay nañu seen waar aussi ci li tax ñu jox leen post yooyu soo jógee ci kooku mën naa fee lim ay nit ay ay nit parce que mën naa la jox exemple madame Aïssata Tall Sall bi nga xam ne mooy première femme ministre des affaires étrangères loolu du du dañ ko ko jox parce que président ay da ko neex wala dara c'est parce que dafa xam ne am na cër bi te am na xëy na xam-xam bi pour mën koo gérer ni mu amee ci mag yi noonu la amee ci xale yi parce que soo seetluwee ci parti politique yi am na ci ay femmes yoo xam ne amaguñu peut-être ndombo tànk yi mais am nañu li am nañu xam-xam mën nañu liggéey te nekk nañ ci ñoo xam ne dañ leen a identifier ci ci ci seen liggéey donc man dama ni taxawaay bi am na solo taxawaay bi dëggu na li des rek mooy ñu renforcer ñu comme ni ma koy waxee président Macky Sall laay wax mu gën ñu renforcer jigéen ñi gën a yokk jigéen ñi doole gën leen jox place bi ñu mérité parce que jox na leen ko mais teg leen ci instance yi nga xam ne war nañ fa décider parce que am nañu moyens yi am nañu capacité bi te am nañu expertise mag ñi fi nekkoon démb itam nee nañu reconnaissance bi war amuñu ko ci ñoom maanaam daal dañuy gis ne xëy na yëf yenn saa yi ingratitude daf ci nekk xam nga euh, bi may commencé émission bi dama cité ay femmes références cité euh, la Maïmouna Kane Ndongo cité la Adja Caroline fay cité la fi ay euh, ay Adja Mimi Touré. cité mm. la fi euh, ñeneen ak ñeneen. Mm. ñooñu li tax ma cité leen day collaborer ak sa sa sa question bi dafa lay won ne la que ñooñu xëy na bu ñu fi liggéeyul dara nit ñi du leen tudd kon man manque de reconnaissance boobu ñuy wax man gisuma ko xëy na dafa di comme ni ñuy wax rek ku sa temps passé xëy na dangay fay. parce que am na ci ñoo xam ne nii xëy na liggéey nañ fi loo xam ne nii ba abada du fay. waaw ba abada du fay. sa dépend ci xëy na responsabilité yi ñu amoon responsabilité yi ñu amoon ça dépend ci degré d' bi ñu amoon et ça dépend aussi ci li ñu liggéeyal euh, nit yi ba ñu war a am ci ñoom reconnaissance. Mm. mais en tout état de cause man damay wax tout le temps que képp koo xam ne war liggéeyal na Sénégal képp koo xam ne yor na fi ndombo tànk képp koo xam ne nii au moins benn jour elle a eu pour quelque chose war nañ ko jox. yoon euh, delloo njukkal am ci moom reconnaissance ndax man de dama am reconnaissance ci mag dama respecté mag te dama bari ay mag yoo xam dama leen di côtoyer di wut ci ñoom xam-xam kon nag je prône la reconnaissance envers ces braves dames envers ces dames qui ont marqué euh, leur époque ñu delloo leen njukkal. ëllëgu jigéen ñi ci wàllu politique. ñu ngi wax ne xëy na jigéen bëgg na nekk président Sénégal am na ñu jàpp ne loolu du mës a nekk. ndax xëy na Sénégal parewul Sénégal du réew moo xam ne jigéen day ñëw nekk fi présidente euh, ëllëgu jigéen ñi gis nga ci dem ba xëy na occupé présidence de la République. Euh, ni ñu nekkee nii di liggéey jigéen ñi ñu ngi leen di gis ñuy gravir les échelons ak euh, loi parité bi encore ma revenir ci instance de décision yi. man bokk naa ci ñi gëm ne mën nañu dem jamono dox ba jigéen nekk fi président dafa bari nag yoo xam ne mën na ko tënk ndax comme dañu nekk ci euh, dëkk boo xam ne comme on dit c'est à quatre quinze pour cent de de euh, am na ci aussi ci diine loo xam ne nii euh, duma ci xuus ndax xëy na xaw ma ci dara waaye damay dégg des fois ñu naan jigéen du jiite yooyu bokk na ci yoo xam ne nii aussi day tënk jigéen ci lu bari mais man gëm naa ne ak fi réew mi toll ak ni àdduna di doxee avec cette mondialisation et tout ce qui va avec gëm naa ne que mën nañu dem ba jigéen nekk président de la République du Sénégal parce que euh, euh, waruñu fi nekk sax di def ay euh, différence entre góor ak jigéen problème bi mooy li ci nekk mooy que ki war a jiite dëkk bi na nekk koo xam ne antan na ko te nekk koo xam ne am na xam-xam bi na nekk koo xam ne yërëm na dëkkam parce que euh, jiite dëkk du dara lu dul yërëm leen ndax boo yërëmee sa ñi nga dëkkal yërëm sa administré yi maanaam ñi nga xam ne yow yaa leen jiite foog naa ne que bu boobaa yow di nga mën a gérer lépp kon man je pense que àdduna mën na dox du léegi nag mais du jafe àdduna mën na dox ba jigéen nekk fi présente présidente man gëm naa loolu mhm. xëy na fi ñuy jeexalee mooy li ñu seetlu tey ci wàllu politique waxante lu ñaaw defante lu ñaaw kàmbalante yàqante jigéen xëy na baaxoo defar ñuy xaar ci moom mu defar rafetal wormaal ban rôle la jigéen ñi war a jouer tey ci yàqu-yàqu yooyu nga xam ne ñu ngi koy gis wàllu politique te bu dakkul du baax parce que ku fi jóg war a jëm kaw xëy na ñu am lu ñu la teg am lu ñu la kàmbal am xëy na lu ñu la fexeel loola dañu koy dañu koy gis lu baree bari ci wàllu politique euh, particularisé wu ma nag personnalisé wu ma dara mais lu nit mënta dindi ci la jigéen ñi xëy na war a am taxawaay bu ñu ci taxawee ba ba lépp rafet ndax politique moom foog naa ne defar moo ci war a ëpp solo leneen. waaw li nga wax nii dafa am li nga wax dafa am parce que politique bi euh, présentement gis naa ne que comme ni ñu koy waxee rek le niveau. Euh, te loolu du fi lu bees. yàgg na fi lool dëgg la le niveau est très bas. Euh, dañuy jël nit di ko xas ci waasoom jël nit di ko. xas ci mœurs te foog naa ne politique euh, idée la war a doon un débat d'idées bien vrai qu'on dit que la politique est un rapport de force mais cette force ne doit pas être loo xam ne nii danga nga ci nuire nit ki di dugg ci vie privée te loolu dañu ko gis euh, li ko andi nag ñëpp xam nañ ko dafa am benn avènement bu fi am muy euh, ay jeunes ñu nit yoo xam ne dañu jóg xëy na sos parti xëy na xamuñu luy politique ndax noonu laa ko mën a tuddee Euh, te ku laal seen njiit ñu fexe ba dugg ci sa vie privée génneel la ko euh, man nag musuma d'accord ci procédé boobu parce que lépp luy wax vie privée jàmbur man an duma ci tardé duma ci wax parce que euh, je pense que comme ni niñ koy waxee j'ai d'autres poissons à que toog fii di lijjanti vie privée jàmbur mm. mais dafa nekk phénomène boo xam ne dañ ko seetlu te li ko gën a yokk mooy les réseaux sociaux les réseaux sociaux dafa jox opportunité ñoo xam ne amuñu woon droit à la parole wala daawuñu wax ñu toog ci seen clavier di wax ci nit suba ba ngoon jot dañuy xëy nekk ci ànd de huit heures à à dix neuf heures dem tëdd nelaw xëy nekkaat ci. loolu nag li koy waral mooy dafa am ñu leen di nourrir aussi daa am ñoo xam ne ñoom ñooy nekk ci ginnaaw di leen ko defloo. mais débat d'idées moo tax tout le temps man damay toog di seetaan ay débat au temps ab du Diouf dama koy seetaan toog di xool ay débat yu daan am ak yooyu. par rapport ak léegi y' a beaucoup de choses. yoo xam ne campagne yooyu ak campagne yi léegi ci waaso la ñuy wax. Mhm. ci ci vie privée jàmbur la ñuy wax ci leneen ak leneen dañuy dem sax ba dugg ci sax ay waajur te loolu du lu rafet. du lu rafet te foog naa ne képp kuy doomu jullit comme nañ koy wax parce que jullit mooy ku gëm yàlla mm-hmm. képp ku ñu yar war ngaa mën a moytu di wax ci sa morom lu ñaaw donte sax bu dee dëgg la nga nëbbal ko ko mm-hmm. mais am na ci yoo xam ne sax ay sos la mooy li ñuy wax fake news mm-hmm. ndax fake news dinañ ko développer de telle sort que yow mi nga xam ne yow lañ ko waxal balaa ngaa toog di ko weddi fekk yàq nañ la te loolu daf fi bari. te du neex a weddi yenn saa mais loolu yëpp réseaux sociaux yi ñoo ko andi te mu am ay ay nit yoo xam ne aussi ci loolu rek la ñuy liggéey te gis nañ ko. gis nañ ay nit yoo xam ne dañ lay xoqatal dañuy nekk ci réseaux sociaux yi amee la te li ñuy wax duñ ci am benn benn benn benn benn firnde loolu dafa am. loolu jigéen ñi mënuñu ci dara jigéen ñi mën nañ ci dara am nañ luñ ci mën a jouer mooy la l'éducation. lépp c'est l'éducation parce que soo yoree sa doom ci kër nga gis muy commencer dévier war nga ko woo ne ko ah lii ma gis de war nga koo mën a bàyyi. peut-être même même jigéen yi ci parti. war nañ di woo jeunes yi en tant que ay yaay ay tante ay sœur di leen expliquer di leen sensibiliser sensibiliser par rapport ak avènement réseaux sociaux yi. parce que réseaux sociaux yi ni mu mën a defaree noonu la mën a yàqee. man tout le temps des fois damay wax naan réseaux sociaux est-ce que c'était pour nous les Africains parce que da gis que ñun yenn saa yi bi ñu ciy def euh, en matière politique. Euh, ak li tax mu jóg du nekk benn da ci gis koo xam ne day xëy suba saaga la keneen ñëw xëy suba wax leneen te du noonu donc parents yi les les mères de famille ñoo ci ëpp responsabilité parce que dañu war a sensibiliser seen doom conscientiser leen ci méfait wu réseaux yi conscientiser leen ci par rapport ak lu ñuy waxee ak mag conscientiser leen ci par rapport euh, waxu jàmbur parce que diine dafa tënk nit parce que diine mooy référence su nit te réfé te diine yi fi wàcc yépp dañ lay wax ne la nit jàmbur. nit du wax ci nit lu ñaaw. loolu nag bu fekkee diine tënk na la te ngay wéyee diine boo ci boolee éducation de base bi war sa ay yaay ak sa ay papa def ko ci yow foog naa ne doo wax si nit mais nag comme ni ma koy waxee rek li fi am mooy réseaux sociaux dafa jox opportunité. ña doon wax. ñi waroon wax duñu wax. ñi warta wax ñooy wax. ceux qui savent et ceux qui parlent ne loolu moo fi am. doy na waar aan ñu ngi lay gërëm bu baax a baax amoon mbégte dalal la ci démb ak tay bi foog naa ne waxtaan bi amoon na solo mag ñi dinañ ci gis seen bopp xëy na ba jox leen lenge yi dem noppalu ji waaye du tee ñu nekk seen wet di leen ñaanal ak di leen xelal ndaw yi aussi mën na am mu yokk engagement ci ñoom en tout cas yàlla na doon njariñ si ñëpp ñu ko doon déglu ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. maa ngi lay remercier Fatou Thiam vraiment pour accessibilité bi ak. Euh, émission bi di remercier population Mbour euh, di ñaan pluviométrie bi ñu nekkee fan yi parce que Mbour xaw na am inondation ba am nañu quelque familles yu ci euh, xaw a sonn di ñaan yàlla jàppale leen jàppale leen ba génne leen ci euh, mbënd mi ñu nekk te ñu ngi ci ndax euh, suñu euh, responsable ya fa nekk ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yor liggéey boobu ñu ngi ci di ci dox ay ay jéego yu baree baree baree bari ñu di leen wax ne ñu ngi bokk ak ñoom métit bi ndax métit la ndax xam nga bëgg a tëdd mënoo tëdd ndax ndox mu bari mm-hmm. loolu dafa nekk loo xam ne nii ku mu dalul rek mënoo koo xam su ma jógee ci loolu maa ngi gërëm ñëpp Euh, di sant ñëpp di wax ne que émission bi j'espère que <laughs> dinañ ci génne ay njàngat maa ngi lay gërëm jërëjëf jërëjëf Anne Françoise Diouf la ñu doon dalal mu bokk ci convergence de cadres républicains nekk itam conseiller municipal ca Mbour euh, mu nekkoon ganu démb ak tey porté combat wu la relève politique euh, ñoom ñoo bëgg mag ñi dem noppalu jox leen léegi ñu wuutu leen daal di kon doxal euh, renouveler la classe politique surtout ci wàllu jigéen ñi ñu ngi gërëm bu baax a baax ñi doon déglu gërëm jaawo jàllo mi nekkoon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi émission bi mun ngeen ko teewluwaat si réew mi officiel mooy suñu chaîne ci YouTube dig daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaanee leneen ak keneen jaa ngeen ngeen doog jàmm